سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu dafa mel na nuyoo sunna la waaye raddu salaam delloo nuyoo farata la yàlla ni wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rudduha yàlla ni bu ñu leen nuyoo na ngeen delloo lu dàq la ñu leen wax wala ngeen wax lu ni mel waaye mbooloo su àndee su kenn nuyoo dafay yóbbaale géew ña des waaye su mbooloo toogee bu kenn fayee mu yóbbaale géew ña kon bu ma ñëwoon rekk dal ci waxtaan bi nuyoo bi Ahmed Saloum nuyoo moo yóbbaale géew ndax ñoo ànd si jotaay bi bi des mooy jaxaaw ji ñu koy defee dafa bokk ci sama feef jaxaw ji dafa bokk ci sama alal ndax li may liggéey di ko door wa a ashirataka laqrabina jaxaaw dafa am taxawaay bu rëy ci sama liggéey ci lislaam te ci suma ma Alaaji Ahmad Baro njëgal la doore woon ba ci maam Alaaji Ahmad njëgal ba ëllëg nee lu ma am bu dee xottu gerte sax Alaaji Ahmad njëgal nee na jaxaaw dina séttu ci kanamu yàlla kon bu yàlla dogalee madame Ndiaye mii maa koy nuyu bu baax boobaa tey moom lay waxal tey lañu toog gise ci waxtaan bi ñëw na kër ga miraaran yàlla dogalul ñu gise waaye fa tabarakallahu moom lay jokkool ba bi ñuy agsi tey ci liggéey bi waaye ma wax leen ni yàlla dogal na ci mbaaxam bi mu ma nee mouvement ànd suqali senegal ànd suqali Sénégal nag mbay ci sawewu tànk wa anzir ashirataka al-aqrabina yonent bi bi mu jógee yàlla da ni li ngay def doore ko ci fi nga dëkk moo tax àndu suqali Sénégal bu président Habib Niang bu dóoree liggéey bi ci biir Thiès ba waa Thiès ñu ko jërëjëf Sénégal dina la ni jërëjëf te loolu mooy taxawaayam bi ma nee boobu la ñoo bëgg conférence ma ne ko ah fi ñu koy defee neex na ma si ñu ni moom la ñuy def neex na ma waaye ki ko jiite it neex na ma muy président Habib xam nga lu tax day doomu Cees day doomi Cees ñaareel bi itam bi mu nekkee doomu Cees ba noppi mu am taxawaay ci Cees sëñ Omar dem bu aar moo ak Serigne Souleymane Seck borom xaas mu maam Amari Ndaak Seck waaye ñu ànd ak dereetu yonent bi nag ah subhanallah walhamdulillah sëñ Sidi Mokhtar Kounta. alhamdulilah. la ilaha illallah. subhanallah walhamdulillah. la ilaha illallah. de xalifa Baye Sidi Lamine Kounta. di deretu yonent bi. ah. moo àgg si ànd ak borom xaas. sacrifice seen bopp monsieur Ahmed Saloum Nasru Diin fekk fi sëriñ Adama Ñaŋ di kenn ci yoon bi di kenn ci yoon bi di kenn ci sëriñ Habib ma xam seen diggante te gis nga sëriñ Habib doomi soxna ku teral kenn teral nga ñëpp. ku teddadil kenn teddadil nga ñëpp bëri na doomi soxna yu la jàpp te gisuñu la ni nga def aadama ñan mi la bëri na ñu la bàyyi xel te jëflante wunu ak yow ni nga def sëriñ aadama ñan la ma wax la ko tey fii ci tànk bi ànd boobu yàlla sax bi des mooy nuyu suñu jigéen di Hajja Zeynab Jóob ñu baal ma su ma ko nuyoo mu yóbbaale géew soxna ñu tedd yépp ndax ñi ma fi xam te war leen a nuyu su ma leen nuyoo ñu ni jóg leen ñu dogi dog jot na góor ñeeg Sëriñ Babacar ñag mii toog ma jël nuyoo bi teg ci loxoom mu tegal ma ko ci loxo kilifa yépp sëriñ Fall jërë ngeen jëf waxtaan wi du gudd ma jom njaay jërëjëf xam nga li tax du mooy farata yàggul damay waxtaan ci sifatul muslim muy melokaan wi ñuy séentu ci jullit pour mu mel ko xam nga Sénégal dañu wax ni quatre-vingt-quinze pour cent musulman koñ bu amoon benn jàkka am na fukki jàkka jàkka yi yokku conférence yi yokku na rey bakkan yi yokku na ma di lee ma jaaxal yàlla dañu inna salaata tanha anil fahshai wal munkar julli da lay dindi ci lu bon jëmale wax ma gis jàkka yi yokku conférence yi yokku julli yi yokk def lu ñaaw li yokk lu waral loolu mooy jullikat yi ñoo bëri waaye jullit yi bëri wuñu parce que jullit jikko la sañ a def lu ñaaw gis nga yonent bi bu xare masaana am bi xare amee la wax nga xam ni dañuy rey bakkan ngir lislaam léegi amatul xare jeex na yonent bi dafa taxaw xare bi dafa jeex mu taxaw ni xare bu ndaw yi jeex na xare bu mag bi moo ci des saxaaba yëpp parce que li ñu traversé ci ay xare bu ñu leen nee xare bu ndaw bi jeex na dañuy am problème ñu jaaxle ñu ko yow yonent ban xare bu ndaw mu ni leen xare bu ni ji wa yëti jullit nit ñi dañuy mucc ci sa làmmiñ waaye mucc ci sa loxo ci baax maax gi nu jëme nit ñi nag yàlla xam na baayu yonent bi yàlla xam na yaayu yonent bi yàlla xam na maamu yonent bi waaye bi yàlla di tagg yonent bi daf ko ni wa innaka la ala xuluqin adim lu ma bind yaa ci gën mu ni ko lu ma gënee nit ñi mu ni ko jikko nga ne du kër gu rafet du oto bu rafet du mbubb mu rafet waaye jikko la waaye jikko la l'islam inna li kulli diinin xuluqan wa xuluqul islam alxayaa maanaam maanaam diine boo gis am na jikko waaye lislaam jikkoom mooy kersa ba mbokk yi damay laaj ndax ku am kersa dina tiim nit rey ko gis nga bi xare daan am yonent bi dañu ñett bu leen kenn laal ci xare bi bu kenn rey jigéen bu kenn rey xale bu kenn dagg garab pour environnement bi bu kenn rey jigéen ci xale bu kenn rey waaye bu kenn dagg garab te léegi rey jigéen dafa bëri jël xale yi bëri na garab moom amatul far foo dem daggi garab te ni bu ko dagg muy ni la coow te garab yi ci yëf yi la bokk dañ ko war a sàmm dañ ko war a sàmm gor nañu foo dem ñu gor yonent bi ne bu ñu rey jigéen bu ñu rey jigéen ba pare wëlbatiku ñu nag maa ngi leen di wax ci jigéen nii ku ko teral mbaa nga sagal ko mbaa nga sutural ko yonent bi nee na yàlla sagal la teral la sutural la mais mission yonent bi bi mu réussir ba am ndam bi mu réussir ba am ndam mais jigéen na ko jàppale muy Xadijatu bintu Xuwaylid nekk femme d'affaires di def business di wàcce conteneur yi waaye xool na yonent bi ba mu intéressé ko ndax jikko mu fexe ba mu denc ko mu fexe ba yonent bi denc ko yonent bi jël alalam Xadijatu jël alalam yonent bi keroog bi yonent bi demee xaaru iraq ba tiit jibril fekk ko fa mu jaaxle bi mu dawee wuti këram mais jigéen la fa fekk xadijatun la fekk ci kër gi moo ko ni dalal yonent bi dafa dugg rek ni ko jommi naa ndax li mu gis mosu koo gis xadijatun sakanat ni ko dalal tàllal yonent bi dugg ni ko euh, zammiluuni zammiluuni sàng ma dassiruuni parce que li ma gis musuma koo gis xadijatu ni ko dalal ni ko doo am gàcce àddina doo am gàcce àllaaxira doo ko am parce que mosoo def lu ñaaw dinaa la assister lu metti dinaa ko ànd ak yow ba mu jeex xam nga jigéen boobu bu teeyul woon mais yonent bi tës damay faral di wax ni jigéen ñi am na ñu ñetti tàccu góor guñ ko tàccu bu la jigéey barsàq nga jëm su la jigéey laa wax dangay dem barsàq bu la jigul na xaw ma foo jëm mooy nga ñëw ak sa njàqare rek mu tàccu la ta wax de xaw ma foo jóge man kenn xaw ma yóbbul fa nga jële woon ne nga sax ma dem sama kër yaay man yii xaju ma jigéen ju daal wa ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum wa azwajan li taskunu ilayha soxna Safi ah li taskunu ilayha ngir mu dalal góor gis nga kuy woote ku ne su la jigéen ñi joxee loxo na sa xel dal xam nga lu tax dañu ragal gàcce te duñu wor ku ñu àndal yéene nañ la victoire xamuma lu xew waaye li sa xel songal ñii ku ñu ni yow boo tëddee na te ku ñu ne yow kat gaa yi ni de maa la ko wax parce que ñoom dañu ragal gàcce te bu ñuy dem dañuy jeex moo tax yonent bi wax ni sallallahu alayhi wa sallam mais moomu bi mu dalalee yonent bi daf ko lam yuxsika allah fi daarayni laa tëj doo am gàcce àddina doo am gàcce àllaaxira xanaa yëgu leen ni euh, bu xadijatu faatuwul woon yeneen bi du toxoo màkk sa ko boobu mi ngi ci wetam yàlla nee na ko alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada wa wajadaka ailan fa agna fa amma alyatima fala taqhar wa amma saila fala tanhar wa amma bi nicmati rabbika fa hadis kenn mosula dégg loolu yàlla nee na ko yow yonent bi mais dalal maa la fekk yow yoroo ma taf la ci sama bopp ma fekk la ngay njëriñ ma boole la ci sama groupe ma fekk la yoruloo da lay tuddee tun na xeer jërëjëf ndeysaan nii mooy conférence la damay wax ngeen di joxe rek amul leneen amul yeneen façon bu ci amul beneen bu bees conférence boobu xëyee ba tey nii képp la may wax ngeen di joxe képp amul leneen amul leneen amul leneen ah sa yaadama ñen leneen dama dem Londres di fa gàmmu say xabib bi ma dooree gàmmu gi benn waay jóg ni baal leen ma baal leen ma baal leen ma baal bi jox ko mu ni sëñ bi daaw bi nga ñëwee fii wii ji ci mouvement bi nga bokk sama jigéen la kër Mama Laaji moo tax Thiès dina la bàyyi xel barke seen xaaj bara man du ma waxantu lay du ma ba ci kanam waxaguma de li may wax waxaguma ko su ma paree lay wax man su ma paree rek wax ngeen xam ne wax naa ma wax nii falaa yemoon waaw kenn noonu waaw kenn noonu waaw kenn waaw kenn noonu la wallaay ndeysaan juditu comme xëy na waaw kenn waaw kenn noonu la bi ma toogee sëñ Babacar jërëjëf ak ay yàgg def lii day sànn dana la yàlla barkeel ah, baax kii ku baax ku yàgg ci kër ci gannaaw mag ñi rek ñoon ba mag ñi taxaw taxawaay rafet si ñoon xalifa di sama xarit dani ak yeneen yu ma dul wax wallaay wallaay dëgg la xam naa lépp waaye ji jóg rek ne ma sëñ bi daaw gàmm gi dafa xawoon a yàqu man ne ko lu xew mu ne ma nit ñi dañoo jàppante rek ren nag takk nañ fi ay barrière dugal la foo xam ni kenn du fi agsi ma ne ko def nga musiba te ngaa dem tekki koy witam dawal dawal dawal da dangaa daanu rek sa yaram a tàng bi dama tekki ko rek ndeysaan ma ne ko dawal doom dawal ma ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla inna allaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin jërëjëf yanduru ila qulubikum wa amalikum yonent bi nee na yàlla nee na duma xool seen melokaan yi duma xool seen melokaan yi duma xool li ngeen am ci alal li may xool mooy seen xol yi ak li ngeen di jëfe ci xol yi seen xol yi ak li ngeen di jëf moom lay xool yonent bi dafa am benn bés sallallahu alayhi wa sallam nii ñu tooge rek mu jekki ni kaay leen ma xamal leen bàkkaar yi gën a garaaw ci àdduna bi alaa unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir ndax du ngeen ñëw ma leen bàkkaar yi gën a garaaw ci bàkkaar yi ñu ko balaa ankañ yaa rasulallah jërëjëf mu ni ñett la ñetti bàkkaar yi moo gën a ci bàkkaar al ishraaku billahi uquuqul waalidayni qaala alaa wa qawlu zuur wa shahaadatu zuur kenn mësu koo dégg mu ne bàkkaar bi gën a rëy mooy bokkaaleeg yàlla gis nga yàlla lu ne lay baale ba mu des ku ko bokkaale inna allaha la yaxfiru an yushraka bi yàlla du baale bàkkaaru bokkaale te nag dinaa koy wax maanaam ñaan lu yàlla aayul waaye njibar xaraam na ñaan lu yàlla aayul nga dem ñu ñaanal la araamul waaye nga wëlbati ko nag kala ñaanal bëgg a doon sa yàlla moo xaraam su neexee yàlla dina am su neexul yàlla dina am nu ko nit di waxee nit mu koy nangu bu neexee yàlla moo am bu ko neexul am ëpp naa wax ku ko yàlla dee sax doo ko wax mu ne al ishraaku billah bokkaale ak yàlla maanaam maa koy nettali démb mbër ba day bëri ji dem ci sëriñ bi mu defaral ko téere mu takk daw bëree daan dellu si ni sëñ bi maa daan sëñ bi maa daan mu ne ko jarul woon nga fiy ñëw suma téere bi ku ma ko jox nga daan mu ne ko sama galgal gi nag ci waaw téere bi daa ànd ak galgal de maanaam li mu bëggoon mooy doon yàlla maanaam wal na ni man la bu dul man du sotti yàlla moo fi ne mu ne bàkkaar bi mooy bokkaaleeg yàlla benn xale daa ñëw ci yonent bi nga bàyyi xel ñett yi benn xale daa ñëw ci yonent bi ni ko ni ko dénk ma yonent bi ni ko laa taxdab bul mer mu ni ko dénk ma yonent bi ni ko laa taxdab bul mer mu ni ko dénk ma yonent bi ni ko laa taxdab bul mer mu ni ko saa yoo meree su fekkee nga taxaw toogal soo toogee jàppal soo jàppee julli ñaari rakk xam nga lu tax saa yoo meree seytaane jege la musiba yi xew yépp mere ko mu ne ko bul mer saa yoo meree seytaane jege la mu ne ko nag ma dolli la ci waalam anna al لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء mun ko xamal ni adduna bi yëpp suñu defoon benn dànk pour jëriñ la lu yàlla àndul si nga jot si seen pexe dina jeex te doo si jot mu ne ko am xamal ni la witi tamaat ala an yadurruka bi shay bu ñu defoon benn coalition kompoloo la ngir écraser la te yàlla àndu ci seen pexe dina jeex te duñu la mënal dara xalima yi yàlla binde woon ni lii dina xew fii lay xewe nii lay xewe xalima ya yëkkatiku na këyit ya ko yàlla bindoon woowu na te yàlla du weddi boppam dëggal nit rufiatil aqlaam wa gis nga bu yàlla gasee nga suul dala fay bàyyi gasiwaat su gasaatee nga suul dala fay bàyyi gasiwaat bu gasaatee nga suul dala fiy bàyyi gasiwaat boo ñëwee nag dalay suul ba noppi soo ko yeggale beneen gas gi wala ku yebbu li yàlla di def mu neex ci sa xol nga gërëm ko ku yebbu li yàlla di def mu neex ci sa xol nga gërëm ko yonent bi ni bàkkaar yi gën a rëy nag bu njëkk bi mooy bokkaal ak yàlla waaye ñaareel bi nag mooy gëdd sa ñaari way jur xale yi ngeen baal ma ñi fi ay xale ak ñi seen way jur di dund te demaguñu am na loo xam ni way jur rekk la ko mën billaahi am na loo xam ni jërëjëf way jur képp benn xale daa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko ndax desee la tinaa sama yaay benn àq yonent bi ni ko loo def ba ko mu ni ko dama ko boot juróom-ñetti fan medinatul munawwar yóbbu ko xubaa yóbbu ko xiblatayni yóbbu ko Uhud fu ne maa ngi teg sama yaay ci sama gannaaw jërëjëf madame Gassama ndeysaan sama jarbaat la mu ni ko loo def mu ni ko dama ko boot juróom-ñetti fan biir Medinatu Munawwara ma bàyyi ba bésu génn armal mu armal ma boot ko dem birru aali boot sama yaay rungu Medine jëm Màkka di wax labbayka allahumma labbayka sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulku laa sharika laka maa ngi ko teg ci sama gannaaw ba dugg biir Makka ma def tawaaful xuduum wëral ko Kaaba gi boot ko julli maqaama Ibrahima boot ko dem Safa ak Marwa boot ko yóbbu ko Zamzam naanal ko boot ko yow mu tarbiya jot juróom-ñetti fan ma rumb ànd ak moom dem mu fanaan fa ma teg ko ci sama gannaaw yow mun arafa jot alxajju arafa ma boot ko rungu dox wuti arafa jant bi so ma boot ko dem Musdalifa mu julli timis ak gee ay xeeram ma boot ko delloo ko mu dellu mu naa sànni jamratul aqaba sama yaay a ngi ci sama gannaaw ma yóbbu ko Makka mu def tawaaful ifaada sama yaay a ngi ci sama gannaaw ma delloo ko wadkurullaha fi ayaamin maadudaati fa man taajjala fi yowmayni fala isma alayhi ma boot ko ba mu ba parcours